bi nga xamee ni yéesu judd na ci betleyem ci diiwaanu yude amoon na ay boroom xam-xam ñu jóge penku ñëw yerusalem booba ci jamonoy buur bi erod la woon ñu ne ana buur bi juddul yawut yi ndaxte gis nañu biddiiwam ci penku te ñëw nañu ngir màggal ko bi ko erod buur ba déggee mu daldi jaaxle moom ak waay yerusalem gépp mu woolu nag